anta babakar ngom cerno bokum gan yeen bu leni fonto may la ñun nday suñu jamm ñun faale wuñ len yam len sen carrière politique guddul gatu cerno bokum yow kat nga gaay xam nañ la bu baaxa baax anta nak yow man bu wax dara parce que suñu sœur nga courage bi nga am pour dugg ci politique da nga wara xam débutant nga nabi vi mais nek débutant du tax tamit ngay attaquer président de la république yeen ki ngeen di défendre sénégalais nawla wuñ ko bëgguñu ko bëgguñu ko de bu gan ngay dañ bi ngeen top ni di sonal sen bop il n'a rien fait dans ce pays topuñu ko ñew leen ñu jup ngeen ne yéen du ngeen jub ñëw leen ñu nekk dans les voies bu nga xamanteni mo nekk voie bu normal ngeen ne yéen du ngeen ci and li ngeen bëgg na leen ci dem fu ngeen ñu wo ñu wuy leen sonko seul lañu top ku ñëmé demal nga def estad <laughs> yaay fi bari nañ fi lool yeen bu ngeen woté seen sali sax kenn du ñëw yem leen benn place nguur gi nguuru deggal la jubal sénégalais dañoo sonu ci yeen manipuler yu yagg yi gaa ñun topatuñ leen yam leen benn place te ngeen dal nuy naa leen gaay pour respecter mot d'ordre bu may mën a busa bi léegi su may wax ci opposition bi damay démissionner ci patriote ci cinq minutes su ma waxee ba pare ñëw adhéré waat loolu système la de ah <laughs> mais yi dama naan Bougane lan moo ko jaral lii ci Ousmane Sonko xam nga nees bi muy bëreeg guy gi guy gi dafa dem naan ay doom ba lex yi gonfale noonu si signature contrat bi nees di ko xool ba si yàgg ni ko. bëri nees rek jar na ngay yàq sa bopp nii mais dama naan buggaan rivalité ak Ousmane sunk rek jaral naka muy sànq boppam nii hmm? mais gars yi est-ce xam ngeen ni Ousmane sunk moom bañul Bougane Gueye Dany gis nga bi leen gisee ci F24 bi ñu daje noonu réaction Ousmane Sonko rek lay xool xam ni amul animosité ci ci ci Bougane Gueye Dany mais xam nga Bougane lii mu nekk nii ay proches maanaam ay journaliste ay chroniqueur am ñoo koy pousser ci lii di ko jay mais ñooñu di ko ci pousser dañu dem ba xam ne ñu ngi ridiculiser wu ñu bëgg dellu ginnaaw xam nga mais Bougane dimbaliwu leen ci dellu ginnaaw xam nga Bougane xol bi baaxul Bougane daal di ñëg di continuer di foncer. Naby Vision. tey boo seetaanee seen matinal bi tey lënd ci fajar da ngay gis ni gars yi dañu loo gars yi dañu sedd. bu jëkk dañ daan défouler xam nga di wax n'importe quoi mais dañ dem ba xam ni amatuñu argument maanaam rythme bi dafa kase parce que xam na ni ci penc mi ñu ngi ridiculiser wu te bugaan moo leen koy yóbbu xam nga tey boo jëloon euh, benn chroniqueur bugaan wala journaliste ñenn ci ñooñ ngay laaj leen ni leen lan ngeen contrer Ousmane Sonko xam nga du ñu ni la non sama xol moo ko accepté wul dama ko bëggul duñ def loolu maanaam dañuy indi argument boo xam ni dañ koy solol mu bëgg tubay maquillé ko waaw xam nga Ousmane Sonko da doon excité booy pour ñu génn ci mbedd mi xam nga Ousmane Sonko dafa arrogant respecté wul institution yi jugé ak nangam face la façon de faire ni muy waxee nangam nangam suñu paree da naa leen waa d'accord li ngeen wax noonu du loolu ngeen gëm pour ngeen man nga mën ko posé waat beneen question ngay leen léegi yéen lan ngeen bëggee Bougane ak la ngeen ko toppee. je te jure que duñu am réponse bi parce que lépp lu ñu wax ci Ousmane Sonko noonu loolu ñu wax non hein ah, bougan fait le pire. te léegi ñoom dañu dem ba conscience ci loolu xam ni nag ñu ngi wayadi mais gisoo Ndeye Fatou Ndiaye li mu doon wax fa nii loolu Kader moo ko jëkk a wax. moy ba Ousmane Sonko ci jëkkee génn Bougane day génn Kader ni non man d'accord ma ci li wax dëgg dof fi ñi ngi commencé fiñ ñu ni di jéngu ndànk day faatu Ndiaye mi ngi wax di souffrir di xalaat salaire beeg yoy wala ku ko dàq ak yoy mais ma pamataat yàlla rek daka taxaw wax ko dëgg ñu dakk ka man su job ci affaireu impôt yi dafa laaj vérité xam nga fa la jaaree bon nekatul sen TV xam nga maanaam Bougane nit ku arrogant la te Bougane gis nga gendarmerie bëggu ñu ko won japp manam da leen pousser pour nous arrêter quoi. Naby Vi. refus de tempérer de tempérer xam nga maanaam euh, Bougane Gueye dama naan sax dafa bëgg dugg kaso pour maanaam humiliation yii 17 novembre gàcce gi ñëw mu bañ ko fee fekk. Maître El Hadji Diouf boo déggoo li mu wax nii léegi da ngay xool ni sax moom léegi mbir yi sax sawaratu ci ni mu dem maanaam dafa dem ba sax ba xam Ousmane Sonko c'est que day ut xaalis nii rek ci gars yi mais xam na Ousmane Sonko sa façon de faire bu njëkk yéen bu leen ko xamoon métti laaj bu daan di défulé non léegi xam nga dafa loowu dara moom danaan <laughs> attaqué leen Ousmane Sonko rek man ngeen may woo man ngeen may gën a enrichir. ah léegi nag gis nga li la ci fekk man daa de dépôt wax dëgg yàlla nag yéenewu nu kenn kaso mais Bougane moom da doon xëccu di provoquer pour dugg prison quoi. kaso Tamba nag moom wax dëgg yàlla tàng na xam nga bu doon Dakar sax di la mën a indil ay mission ak ay ginaar te xam nga juge procureur yi ni affecté foofu moom <laughs> seen yaram day tàng quoi mais damay ñaan nag le 30 na ko juge bi libéré parce que Bougane élection 17 novembre bi il faut mu fekk humiliation bi il faut mu fekk gàcc non gàcc gi ni lay nar a dal da ko war a teewee non waru ko waru ko umpee bibis ngay <laughs> <laughs> joxe hélas Bougane ku yab sénégalais yi la yab bi nga yab yi nag man dama xamul luy ndeyam ak baayam Bougane yow Sénégal ci boppam billahi ay mala mala laa la ay mala sax duñ la ko jox Sénégal waxatuma laa ngay jéem laaj sax baatu askan wi ay mala doo doo ci jox Sénégal gis nga ñi ngay ŋañ. ak di len jéem soufel ak di len jéem a ak di xoti sen war billahi wallahi wal kitaab ñoo la ëpp fi ñoo la ëpp xam-xam te fi ñu jaar bo fa jaaré tak ban billahi yow demo bakkel avant demo bakkel après xaar ba son excellence dem bakkel nga ne da ngay dem bakkel lutax demo avant lutax demo après

pour say propre intérêt ci la sénégalais yi jël seeni responsabilité dégg naa la démb à nga naan filmer leen <laughs> filmer leen <laughs> yow say caméra sax ëpp say nit Bougane revient sur terre moomoo sénégalais yi te billahi wallahi wal kitaab li xew démb bàkkeel képp gis ne jaay doole la wala nga gis ne injustice la naa fekk nga parce que Bougane trouble à l'ordre public lay def Bougane ñii ngay diir mbagg tey yàllaa leen sam Bougane ñi ngay jéem a démb de tey fi ñu jaar jaaroo fa c'est des ex détenus politiques dugg kaso boo xam ne ni kaso mel dem ceeg njàmbaar ak seen fit ndimbalu yàlla fekk leen fa ba li xew xew tey ñu bàyyi lépp ci loxo yàlla bàyyi seen bopp yàlla yow nag ay calcul nga bàyyee sa bopp moo tax lii la dal dal la demal ci sa peggu njaboot gee nga toog te may sénégalais yi jàmm billahi yoon wi nga jël bés boo ci wul boo duggee ci kaso bi dañ fa yàgg lool te bu fi ñëw mukk di ak sénégalais di jéem a victimisé wu duñ la yaram parce que loolu daw suñu yaram bi ñuy jàpp son excellence ci weeru koor di jàpp Ousmane Sonko di leen yóbbu kaso dañ leen a tooñ yóbbu leen kaso mais yow da ngay tooñ kat bu mag nga. Naby Vision. parce que yii nga nekk di def nii c' est ridicule tegoo ko ci dëgg tegoo ko ci xam-xam